صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر discours la boo xam bu complète la mooy jox na ay recommandation sant na taalibe ci li nga xamante ne moo ci guy Masaalikul Jinaan joxaat na leen diggal ci li nga xam mooy liggéey bi mu war def mooy université bi li ñu li ñu war mooy jëfe boobu noonu amuñu lenn lu ñu si wax lu dul maam Serigne Touba bëgg na li Serigne Touba bëgg balaa déwén nañu appliqué bëgg-bëggam boobu mooy incha allah fas yéene defar li nga xam mooy université bi leen li nga xamante ni am na mooy sëriñ bi wax na ni li mu doon bëgg ci rek moom la bëgg ba tey mooy ndox mi war naa am war naa doy amarna war assainissement courant bi warna am te lolou lepp japp na ni état moy responsable te defu ko kon lolou bu état demé ba reconnaître lolou ñun ñi nga xamne ne da nga ko doon xé depuis ñaari at diko xé assemblée nationale ba tax ñu jël fi Mansour fay indi fi manam ki nga xamanteni moy seigne sëñ cham te seigne Mbaye cham gëna yees fofu Mansour fay japp na ni lolou jamani jangoro manam jangoro lo xamanteni muntu dañ ci si nguur gi légui il faut ko ñom ñu tàmbar liñ fa jot damuy audit ko xol li nga xamone war def bala déwén ñu mëna wacc ci si seen seen matuway and ak talibé yi ndax sëriñ bi tam bi nga xamanteni waxna ko bi mu jógee ensemble mënu ma sëñ Tuubaa am na yow ndam

سوى السفر